di kër kër yi di sonn ñuy tëj nii di kii surtout ñu nekkee dans l'opposition mm. amul kenn gis ko kenn dégg ko mu xaar ba yëf yi neex ba neex mu door a ñëw ñu jox ko jël ko bu ko rek président de la mm. am na sama xarit député boo xam ne mm. euh, wax na ma ne qu'il y a un responsable euh, de l'APR bu nekk à l'assemblée un responsable nee dina dina xëy boo ngoon di wax di as di di di intervenir à l'assemblée te du tudd. tudd Amadou Ba. Mm-hmm. nee suñ ko laajee en coulisse xam nga la leen di wax. Mm-hmm. ne leen kii dañu bugg a deful defu fi dara ñu bugg a jël Sénégal teg ko sur un plateau d'argent jox ko et c'est membre important de l'APR pour wax ne rek waa APR wala une bonne partie bëgguñu ko. dañ jàpp ne moom bokkul woon ci combat yi nga xam ne ñoo tax ba APR egsi fi mu mais pour autant mu ñëw rek Macky jël ko jox ko bu ko jox réew mi et donc looloo waral mu am une résistance ak ñi dem ñoom ay euh, Boun Dionne ak ñoom euh, kii Diao ah. Euh. et pourtant li nga gis nii ci Amadou am na ñu ko gis également ci yow et pourtant terewul la woon bëgg laa réew mi. lan non xam nga xam nga différence bi mooy que. oui man sama parti awma contestation. au sein de mon parti man ñi ma am ñëpp dañ maa bëgg ndax euh, samay ni may ni may waxee ni may defee ak euh, principe yi may défendre ak yooyu donc ñoom dañoo ñëw collé ci man am cofeel bu am ci man kii nag moom créewul parti bi dafa ñëw fekk ñu créer parti bi ba pare mu ñëw nag bugg a nekk président jiite ñoo xam ne ñu ngi ci parti bi depuis plus de vingt ans. waaye borom parti bi ko jiital. waaw d' accord loolu la <laughs> mooy loolu mais donc donc groupe borom parti bi moo ko jiital mais pour autant ñi nekk ak ñoom xam nga parti politique parti au pouvoir dafa dafa diis da ngay dem ba ni nga am façon nit mën di nga ko am parce que xam nga xaalis bi ak honneur yi euh, pouvoir bi mooy waral que façon nit bu di ko am. Mm. léegi nag du euh, et puis waa affaire xam nañ ne de toute façon yi moom jaxal na ñoom xam nañ ko xam nañ ne seen président bi jaxal na donc choix bi mu jël am na ñoo xam ne ànd nañ ci am na ñoo xam ne ñu bëri d'accord ci loolu waral mu am ñoo xam ne dañoo bàyyi dem tànn seen yoonu bopp ñoom Mame Mbaye Diao ak euh, Aly Ngouille Ndiaye ñoo ñëpp waaw ah. léegi nag ñooñu ñoo maanaam dañoo wax ci kaw li nga xam ne ñëpp ñu ci biir ci suuf lañ ko doon wax ñi ci ëpp ci suuf lañ ko doon wax donc ñoom ils ont dit tout haut ce que tout le pense tout au sein de l'APR. kon daal su ma la déggee bu baax jàpp nga ne report bi également donte ni yow APDS ñoom ñoo ko sàkku ñoom ñu ñëw doo leen leen ñoom dañu ci gis également seen bopp parce que mun na nekk prox ndool ngeen ñu soppi ki nga xamante ni moom la ñuy samp ngir mu war leen représenté ci élection yi. non euh, Macky dafa profiter ci occasion wu Karim Wade. pour essayer de pour régler yeneen compte yeneen kon yeneen compte du du rek du rek Amadou Ba yeneen comme yan candidature ex Pastef Diomaye Diomaye 2024 Macky moo ko gën a tiital ci waaw parce que xam nga popularité bi Ousmane Sonko am ne nga ko doon wax léegi léegi ni muy créer actualité. presse bi di ci topp tout le temps di a répétition loolu daf ko daf ko jox tur boo xam ne nga bëgg ko ak nga bañ ko il faut reconnaître que Ousmane Sonko et populaire au Sénégal léegi nag popularité boobu dafay rejaillir ci Diomaye Diomaye son ko daa yaa ngi dégg bu Diomaye jàllee rek nga dégg ñu génn xale yi benn benn slogan Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy sonk loolu maanaam slogan de mobilisation la pour xëcc nit ñi ñu ñëw ñi bëggoon Ousmane sonk yëpp muy militant yi muy sympathisant yi ñëpp ñu détourner seen seen effort yëpp yóbbu ko ci Diomaye looloo waral semaine yi passé nga gis nit ñi ni ñuy ñëwee en masse ñëw Diomaye Faye Diomaye euh, di dugg ci coalition bi et loolu ça fait dafa dafa tiital Macky Sall ak son ak son ak son ak son régime parce que xam nañ ne su ñu demee élection normale bu jaar yoon ñoom danañ leen yëkkati ba ci kaw dóor leen ci suuf au premier tour ñoom li ñu doon wax mooy euh, coalition wala yeneen parti yeneen parti yëpp ñu ñëw rejoindre la coalition Diomaye 2024 mënuñu leen tiital parce que ay parti wala du nga xamante am nañ noonu doole ci ab électorat waaw mais su fekkee ne loolu la kay su fekkee ne wóolu nañ seen bopp nañ yi rek suñ demee ah, ñu xool ndax ñoom am nañ doole boobu wala amuñu ko mais lu tax ñu arrêté élection yi parce que li Macky Sall wax ay tappale kese na kon li mu wax ni dañ ko yëf yi foog ñu dakkal ko xaarandigum euh, li nga xamante ni mooy tukkee assemblée nationale ndax situation bi nu mu demee ay candidat yi nga xamante ni am nañ ay double nationalité ak yu ñu mel euh, sans oublier ñeneen ñi nga xamante ni jotoon nañu jotoon nañu opposé wu ci li nga xamante ni moo di la tenue de de de cette présidentielle yu ñu yëpp da jàpp ni teguwul ci fu xam nga Macky biir 41 recalés yi ñeent fukk ak benn recalés yi dañ ko bindee lettre ba mu recevoir leen lim leen wax mu ngi ci constitution bi mooy article quatre-vingt-douze de la constitution. mooy bi ni eh, bu conseil constitutionnel bi waxee dara. yëf yi eh, eh, moom ci boobu moo leen ko wax ne leen leen décision constitutionnelle conseil constitutionnel ndax décision dogal bi conseil constitutionnel génne yoon mayu mayewul. ñu maanaam ñu dem demaat feneen pour contester ko. justement qu'est-ce qui a changé euh, léegi ne décision boobu maanaam dafay tegu ci sunu ndodd ñun ñëpp muy euh, li tubaab di wax ne les pouvoirs publics les autorités administratives et juridictionnelles donc kilifa Sénégal yëpp ñu nekk ci maanaam ci nguur gi décision conseil conseil conseil su jëlee décision. dafay tegu ci noddu ñëpp kenn amul droit contester ko constitution maywul mu def recours contre cette décision waaye léegi loolu du ko wax ñeent fukki nit ak benn yi ko seet si woon ne ñi dañ leen recalé ba pare rek xëy rek ne élection du mais fee bu bees bi ci yokk ci diggante bi nag muy euh, le cas Rose Wardini est-ce que du lu ñu mel moo gën a moo gën a moo gën a tax mu jël li nga xamante ni moom moo di ndogalam. xam nga loolu. anticiper ci li nga xamante ni xam nga loolu. su ko jëlee su ko waxee xam nga loolu ay tappe rek la parce que article 34 de la constitution moo réglé kaawu Rose Wardini ci nag mu ngi nii ma tiim d'ailleurs <laughs> dafa ne su fekkee ne dafa am koo xam ne maanaam dafa am ndogal diggante bi cour bi conseil constitutionnel di génnee euh, la liste définitive de candidats ñoo xam ne ñoom ñoo war a dem mooy ñaar fukki ñaar fukki ñaar fukki candidats yi su ko génnee diggante boobu ba ñuy def premier tour képp koo xam ne am nga fi loo xam ne dala gàllankoor ba doo mën a dem soit muy gàllankoor bu jóge ci yow wala mu jóge ci yeneen sur situation wala yow nga bàyyil sa bopp su boobaa conseil constitutionnel article 34 mu ngi nii dafay changer liste bi génne kooku nga xam ne moo am gàllankoor teg ko nele léegi ñi des ñooy dem élection yi ñooy dem ñooy dem ñu woteel leen te datu élection bi kenn du ko kenn loolu article article 34 bi loolu la wax mooy moom loolu moo dëppoo ak kawu Rose Wardini Rose Wardini bi ñu bi ñu publier la liste définitive mooy ñaar fukki yi nga xam ne ñoom la war a dem bi ñu génnee Karimaat moom mu ngi woon ci liste bi ci diggante bi ñu gis ne dafa am double nationalité conseil conseil xam nga lan mooy rôle am suñ defuloon tàppale yi ñu def nii dem jàpp ko yóbbu ko ci procureur ñu yóbbu ko ci juge d'instruction ñu defal ko liberté provisoire ko kii. parce que yooyu ay tappale la. yëpp ay tappale kese la c'est pour c'est stratégie la léegi. conseil constitutionnel moom xam lan lan suñ ko bàyyi woon day génne Rose Wardini ci list bi. mais kaawu Rose sax moom li mu def nii lan moo ko ci waroon fekk bu fekkee ni jàpp nga ni procédure bi nii yëpp ay tappale la. non non c'est li ma wax mooy que war nañ ko mën a topp ci wàllu yoon mais niñ ko defee nii ba jël ko comme motif de report des élections laa lay wax lii du motif report parce que cas bi article 34 de la constitution réglé na ko ba mu féete boor. kii dañ koy rocc ci liste bi teg ko ne la dootul bokk ci ñuy jëm ji joj ji bu ñuy ci ñuy dem ci jongante bi. léegi lii bu nekkulee ab motif euh, li ñu tuddee ab crise institutionnelle bi nga xamante ne jàpp nañ jamono yële moo am ci réew mi conflit bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko diggante assemblée ak juge nekk ca conseil